wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen chaîne de production bi di Tawfekh Production ngeen di ko am ci YouTube bi ñu nekk ba tey en direct fii ci dëkk bu sell bi Touba Mbacké ngir màggal ak Serigne Touba Khadim Rasoul édition 2020 ngeen gis euh, ginnaaw sànq jóge nañ ci jumaa ju sell ja ak ziyaara ya fa am jamono ji ñi nga fi nga xamante moom ma di bu ñu kër si bi nekk fii euh, dendook ak euh, kër Cheikh Mouhamed El Fadel Mbacke jàkkaarloo ko li nga xam ne moom moo di jumaa ji euh, dend ak li moom moo di xàll wi romb kër Serigne Abdoul Ahad wala bokk barabu Serigne Abdoul Ahad Mbacke di daare Kamil waaye tamit dend ak li moom moo di rek xàll wi jëm Guédé mbokk yi fii ñu nekk ci barab bi mooy barab bi nga xam ne ñu ngi fiy def exposition bu am solo ak waa Touba ci kanam Touba ci kanam di kuréel goo xamante nag ko sànq ñeenti la am ci diir waaye gis nañ liggéey bu am solo bi mu naal sumb ko ci lu jëm ci di moo xam ci wàllum infrastructure ak lépp lu jëm ci wàllum ndox ak lépp luy taxawu euh, askanu Touba ba seen i condition de vie gën a mën a nekk ñoŋ loolee nag moo waral incha allahu rabbi euh, ci waxtaan wi daañ ci ànd ak kenn koo xamante euh, ci comité bi la bokk ci commission bi la bokk ci kuréel bi nga xam ne jamono ji ñu koy amal ci màggalu Serigne Touba Khadim Rasoul ngook ñi nga xam ne moom moo di Serigne Mor ci li nga xam ne moom taxawal liggéey bu am solo ci dëkk bu sel bi Touba sëñ Mor ñu ngi lay nuyu. waaye ah, ñoo ngi leen di fay te di leen jaajëfal di leen dalal ci euh, exposition bu Touba ci kanam. Ah, tey ci màggal tubaa gi baaxoo ngeen ñu ko defee at bu jot yéen a ngi ci li nga xam ne moo di exposition bi ndax mën nañoo dellu si ci dëgg-dëgg li nga xam ne moo di solo si. waaw solo si weesuwul euh, ndegam màggal moom euh, événement la bu nit ñëpp di daje. mbooloo mi di bari te fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi kon dina baax nga def exposition yoo xam ne da nga ciy leeral lan mooy Touba ca kanam da nga ciy leeral Touba ca kanam naka la tëddee naka lay doxee naka lañ ko organiser. su ko defee boo fi ñëwee di nga mën a dañ la mën a leeral da nga am information yoo amutoon ci Touba ca kanam. teyit boo bëggee adhéré ci liggéey bi am carte de membre wala nga nekk bëgg nekk représentant Touba ci kanam ñu sampal la cellule ci benn barab yooyu yëpp préparé nañ ko pour man ko fay def nga xam nañ ne euh, fu ne nit ñaa ngi fay daje euh, fu ne nit ñaa ngi fay jógee di daje si Touba te dara ñu lu dul dajale mobiliser murid yi Eh, man a dajale alal ju bari ju ñu defaree dëkk bi kon nag bépp événement boo xam ne ni murid yi danañ daje rek war nañoo def lu mel ni loo xam ne ni fa lañ leen dalal man leen a leeral ak wan leen yoon wu mën jaar ba tàbbi ci liggéey bi. exposition bi ndax dafa am yeneen barab yoo xam ci biir dëkk bi sell bi tasaare ngeen ko fa wala fii rek mooy euh, exposition fii rek la am. exposition bi mooy carte générale bi. mooy exposition bi léegi nag yeneen barab yi ay stand la stand yoo xam ne naka jekk daana am. waaye dawul demee nii léegi li wër jumaa ji ak barab yi xumb ci dëkk bi yëpp am nañ fa ay stand ba yoo xam ne dañuy jaay ay bolok de Russie eh, di jaay ay ay carte de membre ne noonu di joxe ay information information yu am solo ñu gis fii nga xamante moom moo di ci euh, barab bi ay nataal nekk sama ginnaaw nii nataal yi ndax taal bi ñu ngi ñëw euh, di gëstu bu baax li nga xam ne moo di information ci biir. waaw nataal yi nit ñaa ngi dugg si bañ ko fi defee ba tey di ko xool ndax dañ ko bind ci français bind ko it ci euh, wolof saa boo tiimee ba boole kook ay nataal nga xam ne ba munta liirit boo xoolee da nga xam li image yi di wax mu nekk ay tableau yoo xam ne dañ cee dañ cee leeral. Touba ci kanam présentation Touba ci kanam moo ci nekk ak commission yi yooyu Touba ci kanam bu ci nekk lan mooy rôle am ak ñen ñoo ci nekk loolu moo nekk ci tableau yi nii. mu mel ne yemu rek am na ay fascicule gis nañ fi ay livre yu ni mel. waaw ay magazine la yoo xam ne dañ ci expliquer situation Touba ci kanam bi mu tàmbalee ba fu mu toll ji waaw mu mel ne eh, jamono ji ak mbas mi eh, tey ji li nga xamante moom moo di mesure barrière yi gis nañ ko les médecins eh, annoncé ko également le de général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou gën a féddali kàddoom woo ci taal bi ba gisoon nañ sax juróom millions yi ñu sàkkoon ci amal ko ci dëkk bu sell bi jamono ji ak expose bi ak liggéey bi ngeen def naka ngeen di dëppoo ak mesure yi waaw gis nga rek maanaam euh, ñi ngi ci def li ñu war ndax taabal ya nga gis ci bunt ba euh, teg nañ fa zel yoo xam ne ni kuy dugg da nga ko da ko laal te it euh, mbooloo dajewu fi moo xam ne ni maanaam dañuy soxla ay dis maanaam ay distance wala yu mel noonu ndax wax dëgg yàlla ñi fi jot nekk nii taxul ñu mën a jege lool ndax ni ñu teg ni ñu tegee saisi sax da nga gis dañ ko xaw a sóoraale maanaam sësi sësale wuñ ko nit ñi sësuñu daal. Hmm. lan la ñu mën a xaar ci lan mooy objectif kii euh, maanaam perspective yi lan ngeen di séntu jamono ji euh, ci nga xam te moom moo di Touba ci kanam. waaw ah, li ñu séntu bari na xam nga Touba ci kanam day euh, mbootaay goo xam ne day kuréel goo xam ne waxuñ na fii lay yam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yam. ndax feek ñi ngi nekk ci àdduna dëkk bu sell bii di Touba am na lu ñuy yittewoo te feek ñi ngi am yitte yooyu Touba ci kan dafa taxaw temm pour defar ko jamono ji nag li nga xam ne mooy projet faar bi nga xam ne ci lañ toll nii dëgg-dëgg di ci liggéey mooy euh, assainissement bu Touba. pour le moment ñu ngi ci barki démb la ñu door a arrêté yi ndax màggal gi bu màggal gi jàllee dañ koy euh, continuer euh, liñ koy jot def ci xaalis def na jeex nañ ci prix de 500 millions jamono ji te xam nañ dana gopp ndax daanaka dafa toll ci di door a xaaj ndax da ci am yoo xam ay tali lay doon ba noppi koy booleeg assainir ko incha allah. loolu yenn projet moo taxaw. Euh, projet yi taxaw bari na Touba Ca Kanam li dëkk bi soxla soxla lépp ndax fi mu ndox mi yaa ngi gis màggal gi ndox mi manqué lu mu yàgg-yàgg Touba Ca Kanam dana lancé projet boo xam ne nii ci ndox mi lay jëm euh, ñu ngi ci projet euh, alxuraan yi di leen jàppale ak di leen taxaw bokk na ci euh, projet yi wàllu santé taxawaay yi ñu def ñu ci sixième poste de santé euh, bokk na ci projet yi université boo xam ne ni ñu ngi ci a a euh, priorité yi bii moo jiitu bii moo ci topp bii niñ koy koy liggéeyee banni mat am na noo xam ne ni moom lañ ko programme am na kuréel gu tudd étude et contrôle boo xam ne loolu rek lañ leen féetale. am na solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax bu dee am kàddu gu mujj rek. waaw ah, kàddu gu mujj mooy jaajëfal leen te di leen sant bu baax di ñaanal ñëpp màggalu jàmm jërëjëf mu nekkoon kenn ci ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci kuréel gi di Touba ca kanam di amal liggéey bu mucc ay bu sell boo xamante ni askanu Touba yëpp teg nañ ci seen bët askanu Sénégal àdduna wër nga këpp teg nañ seen i gët ngir liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy gungee Touba di ko ànd nag ak ndigalu Serigne Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Bassir ñu koy ñaanal lool tàndagir Mbacké Ball ñu koy di jaajëf ñi nga xam tamit ñooy bàyyi xel baax chaîne de production bi bu mucc ay bi koy def ci màggal gi rawatina nag ànd ko ak ñëpp ak équipe technique bi waaye gis ngeen bu baax Touba ca kanam